Dja, djefe te, dja, djefe te, sa ma gayi. Mr. Chegle, man geni Brooklyn, New York. Sonko, a Tewawan, mom geni gis ni, kale yi di kou gungi, kom dabitid. Ousman Sonko, sa euh, euh, yi defe meeting, bou pare, kale yi di kou gungi. Sonko nek, defe defbe de diskour bou doy wak. Bo khamne, sa ma live la wan defle gini. Khamge, men ma pare, man non, eno, ifo gman analize, Sonko, li mou wak. Sonko nak daf ñu avertir que ne Macky Sall da fay a taal Sénégal Macky Sall fa bëgg élection yi du am moo mu indi premier ministre ngir lan premier ministre bi daal di tass assemblée nationale comme ça élection yi nga xamne da koy waaj a mu dakk ko Sonko nak laaj xalé yi est-ce que di ngeen d'accord lolu xalé yi ne duñ ko d'accord Sonko waxat benen affaire bu garaaw moy ne Macky Sall baadoolo la bo xamne duñ ko jox nguur te ba boo ko joxe nguur du bëgg wàccu bi mu qu'est-ce qu'il a fait il a reçu n'est-ce pas le Judas il a reçu le traître d'Ibril Ngom n'est-ce pas qui a transhumé qui a saboté les listes n'est-ce pas de You Askanvi à Matam avec fabangom pour aller rejoindre maxal c'est ce traître qui a été reçu n'est-ce pas au palais Son ne nous palais nous ko warul euh, euh, recevoir comment le Djibril Ngom diñu lolou dafa mel ñoo sag sank live man ko doon wax sama live lan la Sonko waxat Sonko mune Macky Sall Limu gën limu def lu gëna a moy ne Casamance dañoo gis ne militaire dañu commencé yëngutu fofu lutax ñu commencé yëngutu fofu parce que Macky Sall bëggul élection yi am dafa bëgg Casamance yëngu bu n'est-ce pas Sall daal di élection est-ce que di ko ne duñ ko nangu Sonko ne Euh, fële Burkina Faso africain yaa ngi xeex xool leen li xew Mali xool leen li xew Guinée Macky Sall dafa war a comprendre ñun bu ñuy xeex xeexuñu pour suñu bopp ñun dañuy xeex pour ah pour suñuy doom soo Sonko ngi nii gis nga xale yi ni ñu ko bëggee gis nga xale yi ni ñu ko gunge bu bu paree sax dañ koy gunge léegi loolu mooy li xew léegi man sama live laa nekkoon sànq ba tey ñu bëri di ma attaqué parce que li tax ñu may doon attaqué mooy dama ne ñoom Dame dañu war comprendre Macky Sall da fay a sàcc élection moy coalition ñom dàmbooj bu tuddi coalition euh citoyenne xawma lan le peuple comprendre nga ñun ñep xamnañ né ay activistes la yoo xam dañ leen soxla yu mel Clédor yu mel Karim Xrum Xax yu mel Cheikh Oumar Diagne ak Dàmbooj dañu bok ci coalition bobu mais coalition bobu ñom xamuñu né Macky Sall dafa bëgg dàq élection yi ñom nak ñu né Sénégal bu bëggee ñu bu ñu bëggee am jamm il faut que ñu voter ak suñu téléphone ñoom dañu bëgg proposé ñu voté suñuy téléphone mën a leen ñun du ñu dugg ci loolu ndax Macky Sall voté téléphone sax gis nga live Sonko bi sax dañ ko doon dagg kon ñoom Macky Sall mën nañ saboté loolu xam nga ñu bëri du ñu am sax téléphone ñu bëri seen téléphone bu ñu bu ñu jëndee passe internet Macky Sall mën na ko yàq sans compter résultat yi ñoom ñoo koy compter comprendre ñu bëri nag yaakaar ne man dama leen di xas xasuma leen mais dama ne leen yéen Macky Sall da leen di nax ndax Macky Sall dafa ndara taal réew mi dafa ndara taal réew mi kon yéen bu leen wax ñoom Sonko boo leen demee ci élection yi nii bu ko Macky Sall sàccee suñu yoon nekku ci parce que am na ku ko wax foofu seen conférence de presse bi ñu def mën na leen bu leen wax loolu ndax Macky Sall moom buggul sax dem élection tey nag ci sama biir live ci la Sonko ci la ma sama abonné wax ne eh Sonko mu ngi tiwaawan mais Sonko li mu wax leer na makk Sall dafa bëgg jéem na tas yeewu askan bi ba sonn munu ko tas léegi mu ne kon damay jéem a fexe ba nu may dàqe élection yi moo tax mu indi poste premier ministre ci biir ah léegi ñu dugg ci campagne mu ne day indi poste premier ministre bu indee poste premier ministre ñu mu tas assemblée nationale Sonko dootul lekk député kenn dootul nekk député léegi nag mu ne élection yii élection maire yii nga xam ne dañ koy waaj a gagné Macky Sall ne da koy dàq Sonko nag neen xale yi est-ce que di ngeen nangu xale yi ni mukk duñ ko nangu comme ni mu leen ko expliqué Macky Sall nag dafa jot nag gars yi Sonko li mu leen wax mooy. comme doo leen ko nangu il faut ngeen génn ngeen waaw parce que baadoo la boo jox njowaan du sama wax de sonkoo ko wax baadoo la boo jox njowaan mooy nguur du ko wàcc Abdou Diouf ñëw na fi defu ko Senghor ñëw na fi defu ko Abdoulaye Wade ñëw defu ko waaye waaye Macky Sall mooy baadoo la boo xam ne Sénégal la bëgg a taal Sonko ci boppam wax na ko Doudou Wade génn na fi ne Sénégal def ko Macky Sall bu defu troisième mandat day taal Sénégal Mahmoud Saleh bu nduróog xaw ma amun la xaw ma Sonko sax saboté na ñooñu ñëpp dañoo dañoo wax ne euh, euh, euh, Macky Sall la fii la profiter pour am troisième mandat kon discours bi c'est un discours va en guerre comme d'habitude un discours de guerrier un discours belliqueux un discours d'un homme déterminé qui veut libérer non seulement le Sénégal mais qui veut libérer l'Afrique xool leen ko gis ngeen ko gis ngeen ko Sonko ngoo Sonko ngoo kon kii defe naa mooy instant bi muy bi muy xool leen lii rek xool la liesse populaire waaw Macky Sall foog faut mu nangu dogal Aïda Mbodj moo nekk noonu Macky Sall foog faut mu nangu dogal xam ne Sénégal kii la tànn waaw bu dee nag da nga kaa ba mu jaral la nga ne da taal Sénégal mais na ko taal boo ko taalee ñëpp perte mais ñun li leen di wax mooy Sonko boo leen ko reyee Sénégal dafay takk ñëppay dee ñu bëri dinañu dee waaw Macky Sall mënoo rey Sonko ba pare du dund iñaan baaxul soxor baaxul il foog nga nangu dogal waaw xool leen ko. moom moom ñëpp ngi fi sëñ Moustapha Sy mi ngi fi ay Mbodj mu ngi fi xam nga euh, euh, euh, sëñ Habib si mi ngi fi Déthié Fall mi ngi fi waaye Sonko ñoom ñëpp moom la ñu jël jiital ko parce que xam nañ ne yàlla mooy tànn te yàlla Sonko la fi teg boo leen nag soxoree nag ngeen iñaane ko gis nga Sonko ngi nii ragalul yorul sol amul voiture blindée amul gilet pare-balles mi ngi nii jaxasoog nit ñi Akhenaton dafa ne Sonko na bàyyi jaxasoog nit ñi Pape Alé Niang di wax ne def attention amul lu muy def attention buñ ko reyee ñoom ñëpp tamit dañ leen di rey Sénégal tàkk jëppeet ñëpp perte ñun bugguñu loolu Macky Sall moo la ko gën a xam waaye nag du ñu seetaan Sénégal ni kii li ñu bëgg yéen ngeen ne non non da ngeen di sàcc élection yi da ngeen di dàq élection yi loolu ñun ñàkkuñu fayda nekkatuñu temps Thomas Sankara nga xam dañuy rey ni taw euh euh euh, euh euh euh nu mu tuddati Patrice Lumumba nga xamné France day rayate France ci bopum xamné ni bu reyee Sonko benn total station total comme ni mu ko waxee toto yi ñu fa dess benn Auchan dootu fa dess lepp luy intérêt français dañ koy attaquer France ñoo la ko gën xam motax Macron ci bopum wax na ne activistes yi gën leen xex gën leen mer kii nitu jamm la xol leen sourire bi xol leen lu ko nit ñi bëggee ngeen xey ngeen da ngeen koy ray au nom de quoi comme ni ko Fatima Fouta Tampi di wax au nom de quoi ngeen ne da nga koy ray ñun nak ño wara def attention ci activiste yo xamne dañ fi nekk bu mel fatima du Fouta Tampi di ñu distraire waaw Dambo ñepp xam nañ liggey kat la Clédor kat la kërëm fu mu xat liggey kat la mais il faut ngeen nangu dogal bi bu len jema créer sen yëfu bopp Cheikh Omar Diagne fu mu nekk ni gagné Macky Sall dafa dafa jege la victoire est proche. yéen ñëpp boo leen defee comme kilifa ngeen ñëw ànd ak Sonko ngeen def comme Guy Marius Sagna ngeen topp ci ginnaaw Sénégal ñun ñëpp ñu def benn say bu wooma Macky Sall ñu bàyyi waaye bu ñu toogee dégg Karim di attaqué Sonko ah lu tax parce que mu ngi jàppale Y'en a marre wala ñu toog dégg Dambou naan Sonko warul nekk maire Ziguinchor Sonko dem ne day nekk maire Ziguinchor kon ngeen xam ne activistes yi tamit dañuy joxe seen xalaat rek mais xamuñu lépp waaw man nag Mister Shake man dama leen di xelal pour wax leen ne daal. ñu xeex Macky Sall nag bu bu bëggee bu bëggul eggali te loolu la ñu dul bëggul eggali mais ñu jëlee ko fi ñu jëlee ko fi mu jeex mais du ñu xaar nag ba mu rey Sonko wara mu taal Sénégal comme mu duuduwaat lu mu wax ne Macky Sall bu defu troisièmement day taal Sénégal loolu duñ ko fi xaar bu nanguwul dogal bi rek du dégage ko voilà gars yi Mister Shake la like leen partagé leen abonné leen lii daw na yaram xool xool leen président Sonko oh lii daw na yaram xam nga voilà mais nag nañu xeex lu leen jaral nañu ko jaral bu buñ ko defee Macky Sall duñu ko abal bu ñu abalul nag comme ni ko Ousmane Tunkara di waxee mu nekk asaaloo Sénégal nekk asaaloo asa bon rek parce que ñun tamit duñu toog ngeen di ngeen di rey nit koo xam ne defu leen dara wala ngeen di toog ngeen di taal Sénégal loolu mooy soxor loolu mooy iñaan boo ko defee ñu jàmbaarloo gi yéen fu mu yem neex gars yi laaj leen partagé leen abonné leen monsieur Cheikh la bu subaa ñu eggale waxtaan bi merci